Euh, maa ngi tudd jaxu Ndiaye nekk responsable APR ngay mexe nekk seen responsable femme aussitôt maa ngi nekk présidente mouvement ànd suqali Ngaye. Euh, Diakhou président de la république ñëw na fi démb yow en tant que responsable APR ban yëg-yëg nga am ci ci ci teeru beeg yëpp ni mu dem. waa loolu boo ma ko laajee dinaa ci sawar pour tontu la parce que démb vraiment am naa ci yëg-yëg bu rëy rëy rëy ndax am naa ci mbégte am naa ci kontante te vraiment maa ngi ciy sama mbokk yi ak responsable APR yu Ngaye Mekhe yi. ak waa mouvement Suxali bi nga xamante ni ñoo àndandoo ñu def mobilisation bu rëy bopp yëpp maa ngi ci kontaan daal waa am naa ci yëg-yëg bu baax. yéen mobilisation bi ban rôle bi rëy rôle bi ñu ciy joué rëy na trop trop trop ndax vraiment feeñ nañ ci bu baax. ndax ñun xam nga ni affaire u président Macky Sall bu fekkee ne dañu ci woo dañ ciy sawar ndax ñun président Macky Sall la am moom la ñu yaakaar suñu wàllu ci politique yëpp ci moom lañ ci yaakaar suñu réussite ci politique yëpp te président dafa taxaw Sénégal taxawu région de Thiès waaye nag département Tivaouane moo ci raw leen taxawu moo tax ñu sawar ci lool lool lool am ci détermination bu mag pour ñëw soutenir président Macky Sall. Euh, président avant muy ñëw Tivaouane seen diggante dafa amoon ay ay lëndëm lëndëm diggante responsable yi léegi nag ñu joxante loxo ne dañoo fas yéene ànd yow en tant que responsable ci APR naka nga ban jàngat ngay def ci loolu. waa jàngat bi ma ciy am xanaa kontaan ci. parce que président bu ñu ko bëggee jàppale il faut ñu def unité ñun ñëpp ñu jiboo parce que bu fekkee ni dañuy wax population bi ñëw leen ànd ak président Macky Sall te juboowuñu population bi dañuy am xel ñaar ñun dañ leen di nax ndax nit ki soo bëggee ànd ak nit ñi pour bëgg nit ñoo ñu jog jàppale président il faut ñun ñu juboo joxanteel loxo parce que fi mu ne politique geex na fal nañu président mu nekk président tous les Sénégal am nañu majorité assemblée nationale fal nañu suñuy localité suñuy maire lan moo fi des préparer suñu deuxième mandat te deuxième mandat boobu li koy préparer mooy ñun ñëpp ñu joxante loxo bokk ndey bokk bàyyi jiboo pour jàppaat fal président Macky Sall mu dem première tour am 90 pour cent waaw. Euh, kon exemple boobu dafa war a law. dafa war ngaay gëm a dëkk sax damaa bëgg maa ngi ko fay woote ngaay maa ngi woo monsieur le maire Maguette Wade. parti bi waa ngaay waa ngaay ni mu fi bindoo ku nekk gis na ko amoon nañu ay jafe-jafe ci ginnaaw waaye loolu xam naa ne ay erreur politique la doon ay erreur la woon ndax dëkk bu mel ni As Diagne euh, dëkk boo xamante ni ku mel ni As a nga fa tubaar fakkaar la mu nekk jàmbaar moom itam ci parti bi euh, jël maire bi ànd ak Maguette Wade du Mbengue Gueye sama càmmañ sama frère moom itam nekk fi man ma nekk fi ak El Hadj Moussa jiite ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoo ngi ci APR ak ku mel ni Mariama Ndiaye moo nekk kuddu moom itam di nekk jàmbaar ak jigéeni APR gi yëpp ak ku mel ni Assane Diop responsable jeune COJER moom moo nekkal fii COJER tubaar fakkaala macha allah nekk jàmbaar nag moom itam ak ñoom Bekaay Touré xale yi nga xam dañoo yàgg ak président Macky Sall ñoom ñëpp dama leen di woo ñu bokk ndoy bokk baay ñu àndandoo def benn dank pour nga xamante ni ngay mexe département Tivaouane bu ñu wàññee élection yi rek bu ñu demee de premier tour rek ñoom ñooy njëkk a am quatre-vingt-quinze pour cent du ñu maye dara incha allah. est waaw maa ngi ci maa ngi ci ay jéego ndax temps yi rek ci ginnaaw barki démb rek demoon naa ci As Diagne dem naa ci As waxtaan naa ci ak moom nee naa ko dama yëkkati dossier bi teg ko sa loxo ndax yow yaay suñu kilifa yaay suñu mag yaay suñu lépp tey ku ne xam ne ni yow nitu jàmm nga maa ngi wax pour nga waxtaan ak Mamadou Mbengue Gueye bu baax te dinaa ko woo dinaa waxtaan ak moom Mbaarak Wade itam wax naa ko ko nee naa ko jàppal Mbengue sa frère la ñun ñëpp ñu bokk ndey ak baay def ñu waa Tiwaawan ak yeneen dëkk yi nga xamante ni fu ñu jëm ñooy ànd di xàcceendoo di dóorandoo waaw ndax xuloo amul kii rek moo am ñàkk waxtaan rek réeroo amul ñàkk waxtaan moo am waaw te jigéen ñi ngaa yépp ñoom itam maa ngi leen di wax ñu àndandoo bokk nday bokk bàyyi ànd ak suñu càmmeñ ñi dar leen jàppale leen parce que góor gu baax goo gis jigéen ju baax nga ca wet ga te ñun ñooy jigéen te fu jàmmu am jigéen moo ko war a dox ndax ñun yàlla daf ñoo bindee lu baax lépp ci suñu loxo la la la juddu ñu baax ñi ñoo leen fi meññ président yi ñoo leen meññ kon ñun nitu jàmm lañ war a doon ñoo war a woo suñuy càmmiñ ci jàmm ñu àndandoo bokk ndey bokk bàyyi te maa ngi koy wax jigéen ñépp lépp rafet ñu àndandoo falaat président Macky Sall mu dem élection gagné premier tour man loolu kese moom ma ñor leneen ñoruma ndax président dama ko bëgg te yàlla tax. fànn boobu sama xel dal na ci sama xel dal na ci ndax xam nga ni président Macky Sall liggéey bu rëy bi mu liggéey ci Sénégal xam nga dama leen ni marchandise mooy jaay boppam marchandise bu qualité foo ko teg doo sonn. Macky Sall noonu la mel ci Sénégal toujours chantier yi ba mu ko commencé fii ne immigré lañ toll fi ne nañ ko tuddee président immigré day immigré rek la mu diggoon askan wi surtout ma li ma gën a ñor mooy financement des femmes financement des femmes Macky Sall daf ko réussir financement jigéen ñi dañ ko daan dégg te daaw ñu ko gis tey tubaar fakkaal la macha allah jigéen ñëpp gis nañ ci seen bopp kenn ku ne gis na li mu def ci faj bi benn at ba juróomi at ku sa doom musaana feebar doo ñemee def hôpital waaye tey xale bi bu xawee kii sax bu nelawee taayeewu sax biddanti rek nga ne xaar ma yóbbu ko hôpital gis nga jigéen ñi ni mu leen defal si césarienne bi boo musaana am doom ñu césarienne la sa jëkkër day tiit du mën a ngénte waaye lépp jaam bourse familiale bi nag man moo ma ci gën a neex jigéen ñi ku ñëw dem jëli sa xaalis wan ma man yenn saa yi sax gis koo xam day kontaan ba dikk sax ji jënd si yaaru vax di ma ko may Macky Sall laaw la cat macha allah Sénégal yeex nañ cee jot. moo ne am na gu mag koo xam ne yéen a bokk région muy Idrissa Seck nee na Idr nee na Macky mënul dara. waa Iddi ndeysaan xolam a jeex da ngeen koy comprendre man damay wax population Sénégal ñu comprendre ko xam nga xol bee jeex ndax yaakaaram dafa tas waaye am na lu ma ko fi waxoon jamono yële dama ko ni ku nungu woor doo am dogalu neex ndax nit ñi dafa tuñu xam nga Iddi bu nekkee fii. bu teyee mu dem fee bu subaa mu dem fee bu ginnaaw subaa mu dem fii bu tayee mu xas kii bu subaa mu xas kii nit ki mënoo koo gërëm ba mu yàgg nga di ko xas moo fi taxawoon waxal Macky Sall lu baax kon tey bu taxawaatee bëgg koo waxal leneen dañuy xam ni xolam a jeex yaakaar ma tas Idy jarul sax tontu man dama koy comprendre rek xam ni boroom yaakaar ju tas moom noonu rek la mën a demee waaw. sama kàddu gu mujj mooy. di gërëm waa département Tivaouane bi yëpp ci mobilisation bu rëy bi ñu defal président Macky Sall di gën a taalal sama loxo nag waa Ngaye gépp ñu bàyyi ma xel te jàppale ma bu baax ci liggéey bu rëy bi may liggéeyal président Macky Sall ak ñi ma ko àndal ñëpp maa ngi leen di tàllal loxo daal di sant sama kilifa yi nekk ci département bi di ci jiital présidente conseil départemental Seynabou madame Seynabou Gueye ture di ci teg ministre Abdou Ndéné Sall di ci teg kële Mamadou Diagne si Mbeng meeru wan directeur EPRES EPRES di gërëm waa Ngaye gépp di gërëm meeru Ngaye di gërëm sama frère Mamadou Mbeng Gueye di gërëm As Diagne di gërëm Moustapha Jité di gërëm département Tivaouane bi yëpp di gërëm nag waa mouvement ànd suqali ndax lu ma man yàlla ak ñoom la di gërëm famille APR yëpp nag di gërëm Ngaye gépp di gërëm sama ñaari waajur di gërëm sama borom kër bu baax bi alaaji Malick Fall nga xam ne lépp lu ma mën mooma di gërëm télévision yépp nag di gërëm yéen seen yi di gërëm TFM di gërëm ñépp di gërëm sama xarit sama soppe ay dara nekk ci conseil départemental bi di gërëm Mariama Ndiaye di gërëm Sénégal yépp nag maa ngi gërëm ñépp képp ku may jàppale ci li may liggéeyal Macky Sall maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax